الكمال وناي يوجد إبراهيم أنفال ما زمان بسم الله الرحمن الرحيم نقعد دوري ويسبسر فال yow de yoonu baa ngi faal jooy na waaw Cheikh Ibrahima Faal may samaam ay sëriñ sa lampu faal ay sëriñ sa lampu faal Cheikh Ibrahima Faal moo di samaam mooy faal njaga yaaram bi yàgg faal assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki ngi leen di ziar te di leen nuyu te di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax te di leen matsawu ci coono yi te di leen jaajëfal ci teewaay bi ak liggéey bu mag bi nga xam ni sémb nañ ko fii ba saa dogal mu àgg tey ginnaaw nuyoo bu tedd boobu nag dañuy jiital ci nuyoo bi suñ kilifa yu baax yi toog te ñuy waxe seen kàddu ku ci mel ni sëriñ Lamp Fall mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di kilifa koñ bi ñu nekk di Baye Fall gi ci biir Daaru Marnaan di ci teg Serigne Modou Mbacke moom Serigne Mbacke dafa saar ndax moom it teew na ci jataay bi sëñ làmp ànd koog ay rakam ku ci mel ni sëriñ Bada Assis Fall mu ci jataay bi ak sëriñ maam Cheikh ak Baye Talla ñoom ñëpp teew nañ ci jataay bi ànd koog waa koñ bi te noonu ñu ñëwee ci jataay bi teew pour inauguration monument bi ni ko sëñ Abdou Ndoye waxe ak sëñ Lamp noonu lañ ànde woon ñun liggéey bi ba mu agsi fii mu agsi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen wax ni lii ñu def seen doole lañ ko defee ak seen kàttan tu tànk yi ci koñ bi ñëpp xam nañ ni lii ñu def liñ ko defee mooy yéene leen dëral ndax peccum liir bu dóoree nday jaa jàpp ca wagg ya te wax dëgg yàlla bu doon ñoomu nee na bu doon ñunu nee na mën naa ni lii dara mën na cee bañ sotti ndax fakkastalu leen ñu ci benn côté kon ñoo leen di sant bu baax a baax te di leen jaajëfal xam naa nag kàddu yi euh, dañ koy tënk te gàttal ko ndax li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li waaye lépp loo xam ne nii rek wax nañ ko ci te mu doon loo xam ne nii euh, luñ waroon a wax la te waxuñu ko nañ xam ne sunu matadi la waaye sëñ làmp moom léppam mat na ndax lim nu waxaan pour nu wax ko dana nu jafe lool pour ñu toog ci mbooloo mi wax ko ndax kat moom daa yaatal xatalut wax dëgg yàlla daa yaatal surtout fii ci Daaru Marnaan gi mu nekk di Baye Fall gi maanaam quartier Daaru Marnaan bi ñuy tudd di tudd Baye Fall gi ci biir sëñ Lam Fall mi fi nekk xatalul dara daa yaatal lépp fépp foo xam ne nii tànkam joti na fa moo fay dem di nemmeeku mbokk ga di fa doxe doxin woo xam ne ni ak yaatal lay indi ba tax na koñ bi ñu nekk di Baye Fall gi lii ñu fi taxawal muy monument bi ba waral jataay bii yëpp eh, yàgg na wu yoon waaye alhamdulilah bi suñ borom dogalee mu àgg nii tey te àggee ci loxo yi yii nga xam ne ñoo ko commencé woon man na ni ni commencé woon monument bi ñoo ko àggale niñ ko àggalee nag nii la mooy ca départ ba bu ñu fàtte ni association bu fi mus a nekk rek ci koñ bi tey yaa ngi ci biir lii kon nañ xam ni association yi taxawal monument bi benn association la du benn fee walla ñaar fee wala ñett fee nit ñëpp xam ni association bi moo taxawal monument bi te association bi waa koñ bi yëpp ci lañ bokk kenn desut muy góor jigéen mag ak ndaw ndax ku jëndul carte de membre ñëw bokk ci association bi tamit gone yi jaar nañ sa kër laaj la sa sa sa weccet nga def ko ci monument bi muy ci suñuy yaay ak suñuy baay ak suñuy rak ak suñuy mag ak mbokku taalibe yi daan jaar sax ci mbedd mi di gis ñuy liggéey te xam ne lii ñuy liggéey ngir dëkk bee ko tax a jóg ngir daaru mar naan moo ko tax a jóg seenu ñax def nañ ko ci ndax biñ koy def jubloowuñ ci dara lu dul taaral Touba taaral quartier bii ñu nekk di Daarul Mannaan taaral quartier bii ñu nekk di Baye Fall gi ci biir Daarul Mannaan parce que buñ nee Daarul Mannaan rek dañoo généraliser buñ nee Baye faal gi tamit Baye Fall gi mënut a génne biir Daarul Mannaan xëy na ab quartier la bu nekk ci biir Daarul Mannaan waaye boo nee Daarul Mannaan rek Baye Fall gaa ci biir kon nag ñun waa Baye Fall gi dal nañu sas fi ñu dalee sas mooy lii ñu taxawal di ko inaugurer tey ku toll ni doomi sëñ Mbàkke Dabe Sarr jóge fële ñëw fekk si ñu ci immigration bi kon ñun nañ xam ni fàttewuñu ci biir Daaru Marnaan kon def na lu rafet loo xam ne nii ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax di ko ci gërëm te di ko ci jaajëfal di xam ni lii mu def sëñ làmp mii la ko defal ndax sëñ làmp fii ci Baye Fall bi lu fi waaye def rek moom nga ko defal Fall daa baax lool ñu ngi koy sant di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ndax lii lépp mooma lii lépp mooma su li nga xam ni mooy monument bi te taxawal ko euh, suñu aman jot gi nag dañuy euh, lim fa association yi déparé dërëm ba ci dugg ba fii ñuy ëgsi dañ koy def waaye na ñëpp xam ne rek kuñ tuddul saw turit jàppal ni te nga mustee def sa wecceet rek ñu lay sant di la gërëm euh, li nga xam ne nag moo yéwénal liggéey bii bañ ëgsi fii ñu ëgsi muy monument bi dafa bari ay qualité liggéey yu ci nekk yu baree bari te fasanti ko ndax bu ñuy wax monument bi boo ko xoolee jëmm ji nii mu taxawee nii li ci nekk ci ay façon métier bari na trop ndax buñ doon wax euh, ci wàllum batiment dañ naan seeni civil lépp bâtiment monument bi ëmb na ko muy ci wàllum coffrage soo xoolee monument bi coffrage feeñ na ci nga xool monument bi wàllum électricien électricité feeñ na ci nga xool ko wàllum carreleur feeñ na ci nga xool ko wàllum maçonnerie feeñ na ci nga xool ko wàllum ferraillage feeñ na ci wàllum peinture feeñ na ci wàllum plâtrier feeñ na ci ba ci wàllum décor feeñ na ci ba ci techniciens yi nga xam ne nii dañuy liggéey bâtiment muy wàllu ingénieurs yi ak architecture yi feeñ na ci ndax luñ design la lu am plan la loo xam ni ci ay preuve yu leer lañ ko teg bañ déparé di liggéey ba moom ëgsi fii mu ëgsi amul nuñ ci làmbutu amul loo xam ne dañ ko cee jëggaari lépp suñ borom dogal na ni ba ci wàllum métallique yi maanaam façon métier yi nga xam ne daal moo moo ëmb génie civil ci ñi ko xam li nga xam ne ñoo ëmb génie civil wàllum bâtiment amul lu ci feeñul ci monument bi tey li muy li jëmm ji di tuuti nii taxaw bu ñu doon xool ci wàllum génie civil nga xam maanaam mooy bâtiment TMU BTM nga xam ni moom moo moo moo ëmb wàllum bâtiment amul amul lu ci feeñul ci bâtiment bi te njëggaaniwuñ ci dara lépp goney koñ bi ak magi koñ bi ñoo ko ànd ba mu sotti nii tey kon euh, ba tey foofu ñu porox ndoll fi comme ni ko sëñ Lamp waxe woon kon kilifa yi fi teew nañ xam ni fii ci Daaru Marnaan Baye Fall bi ay ouvrier yu qualifié ñu ngi fi te nekk ay ndaw nag ay tout tànk yu doog a débuté ñu ngi tàllal ñëpp loxo ndax ab koñ boo jàppalee jeunesse ba fa nekk jàppale tout tànk ya mel na ni jàppale nga seeni waajur ndax tout tànk yi ñooy avenir ëllëg kon gone yi yóbbante woon nañu ci kilifa yi fi teew ni bëgg nañ ku leen jàppale teg leen loxo ci métier yi ñu nekk même ba ci maanaam buñ doon xool ci wàllum euh, technicien ñoo xam ne nii social la ñuy dox feeñ na ci monument bi ndax lii lu dul social mënu ko ndax budget monument bi suñ ko génnee woon tey ni la lii lañ ci def ci xaalis danga naan lii fan la ko gone yi jëlee waaye ñoo xam ne nii mën nañoo dox ci social di yaatal di dugg ci kër yi di lijjanti ba taxawal lii tey ndax yaakaar naa ni monument bi li ko taxawal ci kanam tuuti nañ ci dem ba génneel leen budget bi ni leen li liñ ci jot a jàpp rek ndax am na loo xam ne mënuñu koo xam ni leen nangam def nañ ko ci loola jàpp naa ni kenn ci ñun rek su bëggoon a génne ci poosam daal di koy eh, def ci monument bi dana trop ci moom nga xam ne kon foofu tamit wàllum social feeñ na ci nga xam ne maanaam ak jàppalante ba lii mën a taxaw ba tey foofu ñu ci eh, soññewaat ni nañ xam ni eh, aljamaa mbooloo mooy lépp maanaam loolu arab di wax aljamaa rahma wal furqatu azabun maanaam mbooloo foo ko fekk yërmandee nga ci biir boo tax lii sotti ak tàqalikoo nag foo ko fekk am mbugal la te loolu li ciy doy firnde ni ko wolof yi di waxee ci gàttal rek ak bale boo ko jëlan fi mu nekk nii bëgg koo damm kuñ ko joxanti ñun ak loo bari bari doole doo ko damm waaye boo ci ne woon ruseet benn banta xale ba gën a ndaw boo ko joxee bu naan ko nii muy damm kon loolu rek war na noo doy muy làkk wala foo xam ne leer nañu nañ ni mbooloo rek mooy doole lu dul mbooloo mënul dara kon waa koñ bi ak mbokk yi fi daje nañ booloo jàppoo nekk benn tey it lislaam indi na ci ay leeral yu bëree bëri ndax julli mbooloo ni mu gën a julli kenn borom xam-xam yi wax nañ ko waxati ko kon nañ xam ni mbooloo mooy dëgg kon nañ jéem a booloo ñun waa Daaru Marnaan di jàppoo di yëkkateendoo di tegandoo di xàccandoo di dóorandoo mu mel ni ci wàllum liggéey bi mooy li ma doon wax léegi maanaam monument bi bi nga xamee ni taxawal nañ yax bi ba mu pare euh, yax bi rek maanaam jëmmi moniment bi bi yax bi pare nga xam ni dafa guñ finition yi def nañ ci 405 250 maanaam 405 250 maanaam ci wolof ñu ni juróom-ñetti fukki junni juróom juróom-ñetti fukki junni ak benn ak juróom fukk maanaam bi yax bi pare juróom-ñetti fukki junni ak benn ak juróom fukk def nañ ko ci yaxu monument bi yax boobu bi mu paree ñu continuer dem ci finition yi muy wàllu ci euh, euh, carrelage bi euh, peinture bi électricité bi lampe yi ñu ci def ak yépp loolu mu ngi nekk cent 391 900 mu ngi nekk cent mil 391 900 juróom benn fukki junni ak ñaar ak téeméer ak juróom-ñett fukk kon loolu tamit mooy finition yi biñ boolee lépp nga xam ni nii liñ jot a jàpp rek nga xam ni euh, kilifa yi yoroon liggéey bi biñ calculer total bi mu nekk cent 709 750 nga xam ni kon dem nañ ci téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñaar yu tegal weccee maanaam téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñaar yu tegal weccet mooy lii taxaw tey te jógewul ci poosu kenn ci ñun ku ci bëggoon a génne tey def ko fii eh, mën naa bañ a sotti nga xam ne liñ dajaloo boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm suñu yaay yi jàpp ci suñu bàyyi jàpp ci waa koñ bi jàpp ci moo ñu may doole jooju bañ man def bañ man fee def lii tey ba finance ci budget bu toll noonu kon na ñëpp xam ni eh, sant nan bu baax a baax ñu ngi tàllalaat ñëpp loxo comme ni ko jëw ñi waxee waxe wuñ foofu liggéey bi ci monument bi yamale liggéey bi tamit fii ci koñu Baye Fall bi ndax comme Baye Fall gi biir Daaru Marnaan la daan nekk ñun Daaru Marnaan gépp dañ ko war a généraliser ndax ñun ñooy Baye Fall yi Daaru Marnaan ndax bu nee Baye Fall gi ci biir Daaru Marnaan kon ñun war nañoo yaatal kon ñun tamit nañ xam ni lii ñuy liggéey yamale ko suñ koñ bii kese nañ koy yaatal ba mu génn fépp ba fuñ jaar ci daaru marnaan ñu ne lii Baay Faal yee ko fi def ràññeeku baax ci biir daaru marnaan loolu tamit ñu ngi koy lancé waale mbokk yëpp su ko defee ñu bàyyi ci xel te gën a góorgóorlu àndaat booloowaat di tàllalaat ñëpp loxo bàyyiwuñ kenn xeebuñu kenn ñi am doole euh, bu ñuy liggéey ñu ñëw seen doole ñi am xel indi seen xel ñi am euh, am koom indi seenum koom. ne jàpp naa ne lépp luñ bëgg a def fii ci Baye Fall gi Daaru Marnaan dinañ ko def ñoo ngi ñoo ngi sant ñëpp di tàllalaat ñëpp loxo di wax ni lépp loo xam ne nag dëng na ci ñu ngi koy jéggalu bu baax di xam ni matatik doom aadama la waaye lépp lu ci jub ñu sante ko suñ kilifa bu baax gee toog di sëñ làmp nga xam ne ci kàddoom la ñuy waxee ah, di wax wa axiru daawaana alhamdulilahi alhamdulilahi rabil alamin ba tey ñu ni sëñ seexu naa mun ah, sëñ bas moor mbàkke mi nga xam ne moo nekk nii ci suñu wet seq ak ñun euh, daaru mannaan gi Baye Fall gi teew na léegi ci jataay bi moom it euh, ñu neex a dëkkal lool di sëñ Bass Mbacke ànd ak sëñ làmp di defar fii ci gox bi àndinu rafet te yàquñu ko ñoom ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal di wàcce foofu kàddu yi tey jéggulu bu baax a baax di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Thank you. kilifa yii sëñ Cheikhouna Mbacké ak sëñ Maam Lamp ak mboolem kilifa yi teew ak mboolem mbokki taalibe yi kun teew ñoo ko fa teewal fu fu ñu nekk ñoo ko fa nekkal dañoo tër rek waaye lépp benn la kon taxawaay. ñu ngi leen seen taxawaay. bu baax a baax. dëkkin wi rafet na. dëkkin wi rafet na. lool lool lool. wax dëgg yàlla mu ngi leen di bu baax a baax. bu baax a baax. daara ji seen daara la. nee na daara ji seen daara la. bañ ba taxaw. bañ fi wàccee ba taxaw. ba tey muy defar barab bi rek. muy defar barab bi rek. ci la ñuy yëngu. ci la ñuy yëngu. dox. ñoom seen mbooloo. kon sëñ bi nee mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. sëñ Seexoon ak sëñ Làmpa moo leen kilifa yi ne suñu borom yàkkal leen wéral leen te li ñu yéene liggéeyal Serigne Touba ci gox bi suñu borom defal leen sëñ bi nee na na bu baax gërëm leen آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين إنه أمين ay mbas faal ak kamaan naay yow de Ibrahima Faal mooy samaan bismillaahi faal nongaa ngi doorooy nongaa ngi doorooy mooy faal yow de yoonu Baay Faal doy na la Cheikh Ibrahima Faal